kër hmm. daw dafa bokk ci entraînement muy footballeur bu muy ñëpp a ci yem daw. il faut ngay daw nga war di daw. il faut ngay war da war di daw. dëgg la soo koy def rek sa yaram loo sarse sarse boo dawee mu tas. boo dawee mu tas mais di sarse rek te tasoo ko mbër. say sa muscle bi day gomfale rek taxaw fa. Mm-hmm. boo léewtoo dóorante boo léewtoo def balancement de bras sànni ay kurpeñ tuuti yëngatu jàppante kii mu sarse. Mm-hmm. bu sarsee nag léegi. Mhm. force nekkatu fa. doole dafa nekkul doole doole sax doole dafa nekkul ci lu nit di gis ko Babacar du lu ñuy gis Babacar doole du lu nit di gis. Ah. Babacar des fois da ngay gis nit koo xam ne day am volume. am masse mu bëree koo xam dafa mees mu jàpp ko duma ko daan ko. dëgg la doole fi mu nekk dafa sori. Babacar. Hmm? doole li koy liggéey du question de du question de doole li li koy liggéey du question damay dem jël ay poids sëf yanu non non non non Babacar abiyage nag baax na ci mbër hmm. maanaam abiyage ni mu baaxee ci mbër maanaam day tax mbër mi ngay bëreel di di sóor ci yow ne dara mu ngi ci yow quoi mais Babacar force intérieure waaw dafa baax si doomu aadama moo tax moo tax si jàngat si jàngat ci ci Mor Kankang Diop 2 hmm. boo xoolee boo xoolee Mor Kankang Diop 2 waaw boo xoolee Mor Kankang Diop 2 boobu xam nga xam nga Diop 2 dafa voyagé waaw ñëw waaw gars ne changé wul waaw man man man interview bi ma defoon fii waaw dama la doon wax naan lay bu mu jël loo bu mu jël loo xamante ne da koy téye bëri parce que kat la moo tax état de bi mu indi nii. waaw état de physique bi gën ci moom la indi nii. Diop 2. Baba Babacar kon liggéey ah, am na ñu ne amul doole de. non Babacar doole fi mu nekk dafa sori moom laa lay expliquer nii bu ñu xalaat loolu moor bu xalaatee lool bu bëree Diop 2 mën nañ ko daan ba jéggatu du ko yëg. moor hmm? bu mu xalaat loolu si ci ci combat bii nii. parce que ñoom ñaar bu ñu taxee moor moo gën a nekk koo xamante ne miski la moom ngay gën a teg bët. Hmm. parce que miski la moom ngay gis. parce que muscle moo gën a saignant moom ngay gis quoi. yaram bi ci ni mu tracé moom ngay gën gën a gis. mais mën na bañ ëpp doole Diop 2 parce que taay yi du ñu benn. waaw njool lu mu la sutee rek. Mhm. mën na la ko ëppee doole. te booy boobu dama bëgg mu jël Siteu def ko référence ci làmb. kan Diop parce que même taay même taay bi la moog Siteu boo xoolee épaules yi nii yaatuwul. Mhm. dafa gudd. yaa ngi dégg. Mhm. ba pare moom moom moom mun na jël doole. ndànk ndànk ndànk ndànk di màgg ak dooleem. xelal la quoi xelal bañ a accéléré. doole waaw bañ a accéléré dooleem. Mhm. doole boo ko accéléré rek tey da da lay handicap quoi. Mhm. da lay handicap ci biir bëri parce que moom bërekat la. Mhm. ñoom ñaar gis naa leen seen voyage ñu ñëw. mais Diop 2 moom noonu euh, bi mu ñëwee li ma gis si moom ci wàllu làmb Babacar mobilisation bi ko ñoom def. mbër voyagé na fu ne mais mobilisation moom mosuma ko gis. Fallou Ndiaye damay wax ne Fallou Ndiaye lan lan la tëgg nii laa xamul. Fallou Ndiaye kay grand zallo kay mu ngi koy wax léegi. man dem bu combat. non Diop dëgg Mor naa ne. non non Ba ah. Babacar Mor Mor nekk koo xamante ni Babacar ku sonn ci làmb la aussi. parce que dama ko fekk bi muy bi dara nekkul dara parce que boobu moom moo doon ànd tonnerre 2. Mhm. Thiaw Essar. Thiaw Essar rakku Modou Awa Tine bi trompeur. trompeur ak euh, Laat. kooña 2. Koña ñoo ñëw doon ànd ak moom ci ci ci salle bi. ñu lay àndal ba léegi mais mais mais ñoom bi ñu nekkee ci saal bi. Mhm. gis naa leen ñuy wàññeeku par benn di wàññeeku par benn di wàññeeku par benn ba mu des mook Tonnerre 2. ci saal bi. saabu mhm. veut dire moom wane na ne moom. am na saalu max saalu max moom wane na woon ne am na lu mu bëggoon boobu quoi. moom moor moom moor mu nekk koo xamante ni ku gëm boppam nekk koo xamante ni kat la. Mhm. parce que champion yu bëri la bëreel ci wàllu làmb. Mhm. mais combat bii ni nekk na combat boo xamante ni Babacar. moor bu ñëwee rek bëri juum ci combat bi. moor bu ñëwee rek bëri bu ñëwee rek bëri day juum ci combat bi. lu muy def moor comme ni mu def Tapha Mbeur la war a bëri jég Diop 2. que Diop 2 nekk na koo xamante ne carte mémoire bi li ci nekk dafa bari dóor waxuma la xeex bu jaar yoon parce que xeex bu jaar yoon jub de moo ko gën a mën moor Kang Kang parce que ah. Mor Kang Kang gu fi mbër góos bu jub ci làmb Mor Kang Kang xeexul ak kenn ci làmb Mor Kang hmm. Kang li mu war a def ñëw xeex xeexu mbedd jaxase jub de ba pare doo ko dem bëri ji te jub du ko yëg Mor Kang Kang lu mu ralentir ci xeex bi rek daj ay coono parce que boo xoolee armée euh, euh, euh, caatu ngéwal hmm. gisoo goos bi góos bi ko bi ko bi ko jub de moo ko woo ci tànk jub de yi parce que Diop da nekk na koo xamante ni dafa mën bëri ci ci ay wetam. Mm-hmm. moo tax bu sëqanteeg gaño Mor rek Mor du bëri sens. Mor dafa war a ñëw xeex ak Diop de xeex boo xamante ne waxuma la xeex boo xamante ay xeexu benn benn non non non xeex baa booy indil Gris Bordeaux. waaw Diop de loolu la Mor Mor Kang loolu la war a répété ci bis bi indi ko bu bëggee bëri seeg Diop de. Euh, bëre euh, réussir bëre bi. muy combat bu neex. boo xamante ne ni dama lay wax ne combat yu ñu tëgg yëpp. combat ku fi tëgg combat dàqul combat boobu. déedéet parce que combat la boo xamante ne. événement la arène nationale bu tëjoo. comme soq rek bu tëjoo. <laughs> Ah. ni soq ak. Euh, ak euh, Franc ni ñu def bu mu bett kenn. du ma ne bu neex la Fallou Ndiaye ko tëgg de grand salle dégg nga lii aboo fi wax de. waaw ñaari xale lañu loolu day am ci làmb Babacar. Mhm. loolu. Mhm. dafay am ci làmb. Mhm. mën naa la jox exemple Balla Gaye Modou Lo. waaw seen 2010 ja lig ne ay xale yoo xam dañuy fëlandoo. Hmm. nekk ay naan ay ay il faut ñu bëre ñoom ñaar kenn ki dem kenn ki xaar. Hmm. noonu lay demee quoi. Hmm. dal na ma man ak baabooy. wax bari na lu muy am. bari na exemple am day am ci chaque siècle day ci biir làmb day am. chaque dix ans nga ñaari xale yoo xam ne dañuy fëlandoo ànd ak mbooloo ànd ak. supporter mën bëre ànd ak coow. ñu daje ci kaw léegi nag foofu dañuy bëre kenn ki dem kenn ki xaar. loolu moom dafay Diop 2 ak kii noonu la demee. Mhm. ñoom ñaar ku nekk am nga supporter Diop ki ñaata combat lépp treize combat mhm. benn défaite. Mhm. ki am onze combat onze victoire c'est normal ñu daje ñoom ñaar. Ah léegi nag stade bi daje bi. kenn ki day daan rek dem jaar yoonam keneen ki. aw weneen yoon aw weneen yoon wëriwaat ñëw ba ñu dajewaat te kaw ñu def romance en tout cas combat bu neex la euh, euh, rakka li mu wax expliqué combat bi loolu la parce que tamit njool ak ndaama gis naa leen ñoom ñaar yëpp ñoom li ñuy bëree. gis nga ni ñuy bëree. ni ñuy bëree ñoom ñaar yëpp làmb la joo xam ne kenn waru ci xeeb sa moroom maa ngi teetaan seeni interview nag kenn ku nekk jàpp nga ne yaa mën et c'est normal. Mhm. combat bu taxawee moom danga war a gëm ne yaa mën. yaay daal mais na nga xam ni nga mëne. na nga xam ni nga mëne. Mhm. waaw loolu yàgg naa dégg nga di ko wax nga xam ni nga mëne.